asalaamualeykum waa Sénégal asalaamualeykum waa àdduna ñu ngi leen di delluwaat di leen nuyu di leen ziar te di leen ñaanal jàmm tey ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp di remercier ñëpp ñi nga xam te ne ñu ngi topp suñuy vidéo di ñu encourager ci li nga xam te moom lañuy def ndax xeebuñu benn yoon seeni xalaat tey waa lu xew TV ñoo dellusiwaat ak yéen ci beneen vidéo mu doon histoire boo xam te sunu beneen sœur moo ko dund mu ni moom dafa gis ni ni Jalika yi dunde ak gorom bi ci biir série bi di maîtresse d'un homme marié daanaka lu mel noonu lay dund ak gorom te kaa bi li ci gën a yéeme mooy gorom boobu muy wax mooy turandoom ba pare teg ci sëru yaayam la donc mu doon kaa bu yéeme alors ñu bàyyi leen ngeen déglu histoire bi te dellusiwaat asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal am kontaan te tamit bu baax di leen bëggee it am sañ-sañ tamit ñeme wax ak yéen parce que dama am ci di série ba mu commencé ba tey dama koy seetaan di seetaan ba am ci. benn série benn épisode boo xamante ne neex na ma épisode boo xamante ne na ma mooy bi Jalika joué bi goro te mun naa goro laa nekkal mun naa ne tamit du goro laa nekkal parce ku bokk ak sa yaay ndey ak jur jur la doom bu jigéen may may la magam tuddee tamit ni sa di sama bàjjen may ma ko ba may xale ba moom laa xam xaw ma kenn ku du moom sama yaay ji ma jur sax yàgguma koo xam man moom laa xam yàlla may fa benn doom bu góor moom it mu ne gannaaw yar na ma dërëm bi génn gaal gi mu yëkkati may ma doomam doomam di sama borom kër macha allah yàqu ci dara mu noon la déedéet mais yàqu ci dara macha allah mu doon lu ma neexit parce soo gisee ma nangul ko loolu. lim ma yar la xaw ma kenn ku dul moom lu ma gën a ma d'accord ci sëy doomam àdduna di dem di dem di dem di dem di dem di dem ba yàlla may ma doom doom sama taaw bu góor yéen dégg yëpp maa ngi koy dund lu neex mais depuis bi sama taaw li amee trois ans laa commencé di dund lu naqari sama diggante sama yaay bi ci sama magu yaay di ma xoole bët yoo xamante ne ne mun naa ne nag comme jàmbur la may xoole te ku doon jàmbur it doo ko xoolee noonu te ku doon jàmbur it dem nga sa yoon man mun naa ne mënumaa dem aw fenn fu may dem parce que la mbokk la yaay la bàjjan la lépp la xaw ma samay mbokk moom laa xam kon su demee ko sama magu yaay di bokk ak sama yaay ndey ak baay di ma di ma def lu ma metti di ma tegloon naqari ma koy dund di xale bu doon jàmbur la dem naa sama yoon kenn waxatul ay waxam mais dama ko muñ parce que bu ko malam boo ko gi tas mais bi ma demee ba maar ba sonn dama fépp bëgg dem mais mënuma dem à cause de kan sama borom kër ndax bëgg gi ma bëgg xoolul ci yaayam ci dara saa yi ma ko expliqué mu ne ma soxna si muñal toogal nga muñ parce que lan man dama laa bëgg ma ne ko dama sonn dama bëgg dem parce sa yaay ji mënatuma def ak moom lépp loo xalaat ci lu metti ci àdduna jigéen da koy daj ci néegu sëyam rek sama yaay ji teg na ma ko lu ne teg na ma lu metti teg na ma damay njaalo teg na ma sàcc laa teg na ma lu ne daal loo xalaat ci lu metti rek teg na ma ko dem na ba naan su ma toogee jox ko mu lekk dama koy liggéey pour mu dee dama ko daan fóotal dem na ba tere ma loolu xale yi samay doomu mag laa fi yor sa mu yar leen ak sama doomu nijaay ak samay doom yi ma jur mais ñaari xale yooyu du laal du ma su ma feebaree sa yóndi mu ne bu leen dem sama yaay ci gàttal commencé mais depuis ba ma seetaane série bi Jalika ni muy def gorom bi dama cee d'accord kontaan naa ci parce que yenn goro yi moom fitna la parce que dañuy bëgg a sëy seen sëy bëgg a sëy seen sëyu bi lu ma metti lépp depuis bi may xale ba nii ma toll ni am fanweeri at lu metti rek laay xëy na am na ci loo xam ne dama ko fàtte am loo xam ma jàpp ci maa tamit bu baax li ma la jot a wax ne de moom laa jot a jàpp jéggalu bu baax parce que bëgguma tey ji dem tas ba ci samay njaboot wala dem tas di sëylaat beneen góor te problème bi jógewu ci sama jëkkër ndax man ma bëgg sama jëkkër moom ma même a daf maa bëgg bëgguma sax damay am problème toog sama néeg di jooy sama yaay bi ma jur mosul xam li may dund samay mag yu góor noonu samay famille kenn mosul xam li may dund saa yi ma wooyee yaa ngi ci jàmm jeex na billaay wallaay kontaan bu baax jërëjëf encore une fois merci beaucoup. ça nekk yaa ngi ci jàmm d' dégg nañ bu baax li nga wax léegi man benn question la amoon mooy yow à ton avis lan moo waral sa yaay jékki-jékki changé comme nee nga moom moo yar début bi nga commencé sëy tamit bi neexoon na lan moo waral mu jékki-jékki changé noonu ba mbañeel noonu yëpp mu am ko ci yow. tax moom mu dem ba ci yàgg mu changé yàlla xam na xaw ma lu tax su ma ko xamoon. maislekelelefu hai wallahi aje xaw ma ba tey li tax sama yaay ci changé dama jàpp ne li mu nekk mag la moo tax xam nga dañ mag moom booy mag rek booy magal dangay changé ba lekk loolu la def naa ba jënd sama goro jënd sama suukar tuub jéggalu ñu ko yaay bëgg naa nga wax ma lépp lu ma la def ci àdduna wax ma ko nga jéggal ma ma baalu parce que maa féetewoo xale ndax tey ñaanuma yàlla tey ñu lay jox toor man ñu may jox dëgg ñaanuma ko yàlla loolu du lu may gënal du luy gënal samay njaboot mu ne ma sama deuxième doom ma koy am am am ngay jaay commerçant la mu saaf gerte 4 kilo dama toog mënuma toog ma tëdd dama tëdd di mbuus gerte yi 4 kilo gerte yi dama ko mu fekk ne ne ah dama mënul toog bi rek moo tax ma tëdd ni di mbuus ma mbuus gerte yëpp ba pare jox sama doom ne ko jox ko fa naan te ñëw xool ma sa maam ne ko mu ñëw léegi sama doom génn woo sama maam woo sama yaay kay pour mu ñëw yóbbu ma hôpital léegi sama yaay daal di ñëw toog foofu ba timis imagine depuis trois heures ngi moto mu daal toog ba timis mu daal ñëw mu ne ma yaa ma woolu ma ne ko maa la woolu mu ne ma man la ma ne ko damaa bëggoon ne nga yóbbu ma hôpital na sama biir day mu toogaat ba mu jekk mu ree mu ne man bu dee maa la yóbbu hôpital dama ko hôpital kon fii ngay dee ndax man maa ki la yóbbu hôpital dama ma nga wax mu ne li ma la wax dégg ko ku ma ci ma ne ko jërëjëf yaay naa ni nga taxaw ma daal di tëddaat sama doomu njëkk bi daal di ma ne ko diw mu ne ana sa noonu astafurlah sama doom bu góor ñëw man ko demal kër ñoom safit xadi ñu ko wuy sama yaay xale bu dem foofu fekk ko foofu mu demaat ñaari yoon fekk ko foofu tombe sama doomu njëkk bi daal di romb ñu ko diw sa yaay mu ne ma sama yaay mi ngi kër man ko dama nga ma ko ne ko muy yaay lii ak lii laa ko def yàlla xam ne xaw ma ko sama nijaay sax woolu naa ko woon pour mu ñëw fii moom dong ak sama yaay lu ne laaj na ko mais nangu ta wax parce waxee mën na la man dama bañ xale yi bañ ko moom moo tax moom mënuma supporter sama nijaay ne ko diw du def loolu parce que diw yaa ko yar diw du toog ba léegi di la bañ yaa ngi mu ne yow moom ngay faral yaa ngi dégg madame Mansour Mauritanie toog pour noppalu toog pour trois mois muy woote téléphone pour ma ñibbi si ñibbi si bi sama nijaay daal di ne diw de dootul mënati ñëw tànk jëkkëram ñëwul mu ne ah noonu nga ko gisee mu ne waa mu ne sama nijaay amul benn problème bàyyi leen ma rek ma dem parce que moom mag la te ay xale laay bàyyi rek ma dem sama jëkkër yónni ma paas ma daal di ñibbi si dem. mu dem faa waroon a toog mais sëñ bi ci gàttal yàlla xam ne ne xaw ma luy soo sama digganteeg moom buur donc mbokk yi ñun ñëpp ñoo ko déggandoo dem naa sax ba laaj ko ni ko à son avis moom lan moo waral mañeel googu yëpp gorom bi am ko ci moom mais dégg ngeen li nga xamante ni si moom la tontu ñu doon ñaan nag képp koo xam ne am nga ci xalaat nga bàyyil ñu ko ci commentaire yi wala nga envoyé ñu ko par message ci sunu numéro whatsapp di dellu di tuub di jéggalu ñëpp ñoo xamante ni si ni vidéo bi laal na leen di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah.